salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gaa yi bu ngeen gisee dossier Ousmane ko yàgg procureur yi ñi koy àtte ci boppam ñoom ñoo xaw a caga parce que dossier bi du Ousmane ko ndax ñam na booy bi waaw wala déet du loolu de viol ngeen ko jiñoon dem ngeen ba ca biir xam ne viol bi amul topp leen cadre viol bi bu viol amul rek dossier bi jeex na nan ko classé wax leneen mais ñam na kook wala ñamoo kook dugal nga wala dugaloo loolu taxul a jóg bi. dañuy waxtaan ñu bàyyi naa féq yi quoi parce que man y a des mots y a des mots que que je peux pas que parce que du sujet bi du sujet de viol là ah on a vérifié y a pas de viol mais on laisse tomber on laisse tomber mais pas créer un nouveau dossier là en disant que ñam nga boy bi wala ñamoo ko les les les de merde là c'est pas bon dossier de viol amul mais dossier bi dañ ko classé.